le 16 décembre 2023 Maroc lay doon euh, bu ñu ñëwee ba le 6 janvier ñu amal ko fii euh, ca Dakar muy le forum euh, sur l'immigration irrégulière lan moo waral nga daanaka am initiative boobu et puis le choix du Maroc et du Sénégal ndax choix bu fortuit la boo ñu mënee développer tuuti si. waaw li tax amal forum bi. ni ma la ko waxee léegi maa ngi dëkk Ñomre ku ne ku wax Ñomre wax Louga ku wax Louga aussi di nga wax émigration mhm. man mi wax ak yow suma papa nekkoon na président des émigrés ba ni suñu borom dogalee mu jóge fi en 2008 kon xam naa lan mooy émigration mhm. fi ma dëkk kër boo dugg da nga fa fekk émigré mhm. xam naa lan mooy émigration xam naa ban gëm-gëm la nit ñi am foofu donc nga daan toog ak ay nit xam leen tey mu leer la la ne seen jëmm mi ngi ci géej gi kenn gisul seen seen seen ay bàmmeel loolu métti ci ay mbokk métti ci yu bëree bari te ñi koy def li ñu bëgg lépp mooy tekki tekki lañ bëgg dem uti lu ñu dimbalee seen ay waajur wala seen njaboot ëllëg loolu rek moo tax ñuy ñuy ñuy dem di daj ay coono ki nga xam ne mi ngi jël gaal ne day tukki kooku xam nga du yaafus. kooku xam nga bañul liggéey. xëy na jàppale bi war ci moom wala taxaw bi war ci moom mu amul. suñu xalaat nag mooy comme Maroc ñu bëri fa la ñu jaar ndax dem naa Tanger dem naa fa ay dëkk yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri euh, gis naa ni ñuy programmer di teg ay Sodiac euh, pour dem ci géej gi pour traverser boo demee Tanger ak Espagne c'est quatorze kilomètres tey foofu tey ñi ña nga fay jaar ñii ngi jaar Dakhla ñii ngi jaar Nador ñii ngi jaar Cité jafe-jafe yu bëri nit ñi di ca di ca di ca jaar pour tukki pour jàppale seen ay mbokk ñu ne pour pourquoi pas ñun ñu organiser forum boo xam ne dinañ sensibiliser suñu moroom jeunes yi wax leen ni leen euh, li ngeen bëgg mooy tekki mais tey boo leen gëmee seen bopp toog ci seen réew góorgóorlu di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen mën a am li ngeen bëgg euh, tout récemment maa ngi seetaan benn interview si benn euh, télé am benn jeune buy wax ne moom bi muy dem Nicaragua li mu financé lépp dem na 6 million te 6 millions yooyu fii la ko liggéey imaginer tey nga liggéey 6 millions ci sa réew. yaakaar naa boo góorgóorloo tuuti li nga bëgg war nga ko mën a am nit ñi tamit ñu ñu ñu jël ndaw ñi gëmloo leen seen bopp yombalal leen lépp ubbil leen bunt yi euh, mécanisme de financement yi am ci réew mi ndaw ñi moom ko ñu wan leen ne leen kat jaar leen fi communication bi àgg fi mu war a àgg mais tey Sénégal ñu bëri tey lu bëri sama genre bi ñi ci dem ñi ci dox li tax ñi ci dox mooy euh, duñ ci gëm seen bopp parce que bu ñu la woon tey boo demee fi am na financement di nga mën a def mais li ngay jëkk a xalaat mooy boo demee duñ jox léegi nag communication boobu ak bi waroon am diggante ñi yor loolu ak ndaw ñi euh, yomb gi mu waroon a yomb ak fekk leen fi ñu nekk jàppale leen ci ay formation parce que nit ki mënul liggéey te amul formation. Mm-hmm. mënul liggéey te yaruñu ko ci liggéey yooyu yëpp nag dafa doon yoo ay mesure d'accompagnement yoo xam ne su amoon tey du ñu ne mbëkk mi dina jeex à 100 pour cent mais dina wàññeeku bu baax a baax. nit ñi nekk ci réew mi di liggéey tamit ñu ñu ñu ñu gën leen valoriser parce que tey exemple bi may joxe rek mooy ñi nekk par exemple ñi nekk euh, Sonazed euh, tey yaa ngi wër tout le temps di récupérer ay ay déchets ñooñu bu leen leen mënee jàppale aussi par exemple tey ba kiy liggéey Sonazed ak ki nga xam ne mi ngi liggéey primature du ñu soree wala ki liggéey ki liggéey ki liggéey ki liggéey ci yenn structures yi yi nga xam ne jàpp nañ ne nit ñi xaw nañ leen a xaw nañ leen a xeeb ñu jox leen yenn valeur yi jàppale leen jox leen importance dinañ dem ba nit ñi yu bëri dina dina complexe bu bari dina génn ci seen i xel dina génn ci seen i xalaat dinañ mën a toog xam ne àdduna bi li am solo mooy y a pas de boo mën a nekk di ca gis sa bopp que ki nekk fii que ki nekk feneen dafay dafay dafay dafay dafay nekk benn jàppale ndaw ñi euh, particulièrement quoi